حمدا لمنزل لنا وداي ومنزل الشفاء والدواء من امر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء بلال وفاز بالخلاء محمد تبي بنا الحكيم شر man asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñun waa daayira xidmatul xadim métallique Touba bi lëkkale mboole menuisier métallique yi ñoo ngi jël suñu nuyoo di ko ji sëriñ sëñ Afi Bousso mi nga xam ne mooy kilifa jataay gi di jël nuyoo Xidmatu Xaadim bi yëpp di ko jox mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam di santaal Sëriñ Tuubaa bu baax a baax ci dajale ki nga xam ne dajale na ko fi ñu mel ne ne nga ni daaw euh, dajewoon nañ fii ci bërëb bi ci tedd bi ci jumaa ji amoon ab liggéey bu mag buñ fi amoon mooy entretien ak Sëriñ Tuubaa ñu teewaat fii nekk ni ren di santaat yàlla ci bàyyi gi ñu bàyyi yi ñu fekk ko di santaat bu baax a baax nag ci taxawaay bi nga xam ne Xidmatul Xaadim am na ko ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi muy daayira boo xam ne nii dafa jóg ngir delloo Sëriñ Tuubaa njukkal ci dëkk bi ñu toog ba yëg ne xam ne eh, jot na ci ñun murit yi nga xam ne ñoo dëkk Tuubaa sëriñ bi amul benn bis bu mu wootee ci dëkk bi ak ndimbal luutu màggal Tuubaa te lii ñuy defal sëriñ bi muy entretien kër sëriñ Tuubaa ay nit ñu ñoo ko daan def daan jóge dëkk yi fasanti ko daan fi ñëw ñu dem ba xam ne jot nañu delloo sëriñ bi njukkal ci lan taxawalee lii muy mbooloo boo xam ne nii dañoo jug ngir doon benn ngir delloo sëriñ bi njukkal ci seenu métier mi nga xam ne moom leen yàlla wërsëgale muy aluminium inox ak fer gannaaw bañ ci amee ndigal ci sëriñ Muntaxa Mbàkke loolu it euh, bi ñu ko taxawalee ba léegi li nga xam ne mooy pas-pasu xidmatu xadim mooy entretien que sëñ Tuubaa yi tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi loolu mooy doxalinu xidmatu xadim muy daayira boo xam ne nii li ko tax a jug lépp rek mooy delloo sëriñ bi njukkal ndax li ñu am ci dëkk bi ak euh, tawféex ji fi am lépp lu ñuy ne dañ ko delloo sëriñ bi njukkal mënuñu ko dañuy jéem rek ndax sëriñ moom euh, li muy am am na ko pare ñun ñoo xeeñcuwaat ci barkeem ak it euh, tawfeex yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci dëkk bi te it kenn ku ne fa nekk yaa ngi fa yaxantu di sant sëñ bu baax a baax loolu bokk na ci euh, Xidmatul Xaadim mbooloo mi nga xam ne taxawee na ko ci dëkk bi euh, sëñ bi ñu ngi la koy seeral baax a baax a baax a baax di la xamal ne mbooloo mii tey jii toog fii di daara Xidmatul Xaadim fasante nañoo kóllëre yéen waa jumaa ji muy Muxaddamatul Xidma bu baax a baax ci li nga xam ne nangul ngeen ñu ko ndax bi ñu jugee am yéene liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi am nañ ci ay kilifa yuñ jaar ci ñoo xam ne nii ñoo ñu jàngal métier ñoom it ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne taxawee nañ ko ci ñun ndax it ñoo ñu def ci ñun xam-xam def ñun ab yar ak i teggin ban mën a taxawee li nga xam ne mooy tey li li yor tey jii ndax ñun sosuñu dañoo sof sof gi ñu sof mooy ñoo ñu jàngal métier jiituñu ci dëkk bi di di ñu teete di ñu woon yoon yoon woowu ñu woon nag ci lañ jaare ba mën a taxawal tey lii tey kon it ñooñu it ñoo ngi leen di jaajëfal lu baax di leen ñaanal euh, lépp lu luñ ci am ci aw yiw yàlla nañ ko bokk ak ñoom ndax lu ñu xam tey gannaaw yàlla ñoom la kon bu ñuy gërëm euh, ñi nga xam ne ñun ñii la nan leen ci boole ndax ñoom it lu ñu am tey ñoom la ñoom it yàlla na yàlla yàggal leen fi di ñaan di sëñ bi nga defal leen ñaan baax a baax ndax xam-xam bu mën a am ba di ko liggéey rek ñi ñu jàngal métier ñoo ci teete li ci desit mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay ndaw te ñu war a taxawee liggéey suñ tubaab bi te it di santat yàlla bu baax a baax ndax ndaw buy liggéey di gis mag xelam dal mag buy liggéey di gis gone xelam day dal ndax ndaw mooy mujjee nekk mag te mag it du yàlla waaye yàgg naa yàlla kon moo taxit eh, xidmatu xadim ñi ci nekk ñëpp amaana kenn ku ci nekk ay borom bi jaaw bëriwu ci ñëpp ay ndaw lan am pas-pasu bi liggéey suñ tubaa di sàkku ci sëriñ bi nga defal ñu ñaan bu baax a baax yàlla yëkkati ñu may ñu xéewal ba xidmatu xaddim bi fépp fu ñuy déggub daayra buy liggéey suñ tubaa yàlla may ñu kàttan jooju ak man-man gi ak fekk gi ndax it euh, li ñuy def tey jii euh, weer wu dee bi de dajale ñaar téeméer at mu nekk douze mille francs ak social bi nga xam ne ñu ngi koy def muy trois mille francs muy wàllum dimbalante mi nga xam ne ñu ngi koy def ci suñu biir te it kenn ku ne xam ne ay nit fu ñu raje ñaar rek fay nekk man ak manadi weer di wér ak loolu it daare bi ñu ngi ciy dox ay jéego yu am solo nii ñu ànd nii amaana sëriñ bi la neex ndax kenn ku ne euh, daa nga gis sa morom te it li ngay wax mooy euh, na ngeen def na ngay wax waaye sëñ waa mi ñu boole lëkkale ñu yendu fi ba ngoon jot di taal ay pos taal ay móol te gisoo kenn sa morom ne yaa ngi may gaañ ba ak may mooy móole loolu sëriñ bi rek moo ko man ndax it ñi fi nekk ñëpp ay ouvrier lañ waaye kenn ku ne sa morom moo la gënal sa bopp. te li ko waral mooy sëriñ bi kon ñu gën a xam ne boole gi ñu sëriñ bi boole kenn ku ne dëkk nga ci dëkk bu fasantikoo ñëw Touba ñu nekk murit nekk taalibe ba pare nekkaat ay ouvrier ba pare sëriñ bi tënkaat nu ci boppam kon loolu nañ xam ne nekkul lu ndaw amaana tànneefu sëriñ bi la ndax ni mu ñu boolee tey jii ab tànneefam la bi ci toppit mooy euh, liggéey sëriñ Touba yombut sëriñ bi moo lay liggéeyloo ndax amaana jumaa ji ñun njëkkuñu fi duñ ci mujjit boole ci waaye am na ay jëm yu fi jaar yoo xam ne jiitu nañu amaana seet xel dajuloon lii waaye ñun ñi nga xam ne tey eh, dañoo tombeek ayuk mun Muntaxa ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi lool ba tawfeex ji nga xam ne yàlla dogal na muy liggéey sëñ Tuubaa Xidmatul Xaadim mu jaare ci loxoom jaare ci gémminam loolu it ñoo ngi ciy santaat sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax a baax di santaat mbooloo mi baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne amee nañ ko ci liggéey bi xam nañ ko bu baax a baax di ñaanal eh, mbooloo Xidmatul Xaadim bi yëpp yàlla na leen yàlla taxaw yàlla aar leen sàmm leen ci barkeb Sëriñ Tuubaa ba nii ñu ko nekkee di ko liggéey dem ba suñuy sët ak suñuy doom di ko taxawee te yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal di gën a santaa suñu bopp di leen gën a dénkaa suñu bopp baax a baax a baax rek te xam daal lépp daal e, sëriñ bi la lu ñu mën a am ak suñu yëngu suñu daal lépp sëriñ bi la te it buñ sañoon lépp loo xam ne ni jumaa ji yittewoon na ko ak kër Sëriñ Tuubaa gi Xidmatu Xaadim lépp lu ci mën dana ko def loolu it fas nañ koo yéenee ànd ak yéen ci liggéey bu baax a baax a baax kon ñoo ngi eh, wàccal suñu kàddu foofu ndax waxtu wi dafa ne dafa jege di jox sëñ bi kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbooloo mépp ci turu Cheikh Mamadou Mountakha. mbooloo mi sëriñ bi nee na ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu Cheikh Mamadou Mountakha. mooy kilifa ak barab bii. mais mi nga xam ne mooy kilifa barab bi mun ni moo ñu fi bàyyi. xam ne moo leen fi bàyyi ñoom ñii. di nuyu ci turu mbooloo mi nu àndal mi daayira Muxaddamatul Xidma. mu àndal di daayira Muxaddamatul Xidma. di leen sant di leen gërëm. ne mi ngi leen di sant te di leen gërëm. di leen ndokkeel tamit jëf ju am solo ji ne jëfati ngeen ko. ne mi ngi nuyu ndokkeel ci jëf xam ne jëfati nañu ko. te lépp di coobare sëriñ bi. ne lépp nag di coobare sëriñ bi. sëñ bi dafa ñaanoon képp ku yëngu ci barab bi. ne sëñ bi dafa ñaanoon képp ku yëngu ci barab bi. suñu borom jéggal la jéggal kala ko kala ko digal. suñu la jéggal ka ko digal. te barab bi nag. nee barab bi nag. muy juma. mooy juma. ak liggéey ab liggéeyam du mat. ab liggéeyam du mat. ndax kon ne xam na ne jumaay màkk ak madina. nee kenn ku ne xam na ne jumaay màkk ak madina. am nañ junni at ak ñeenti téeméer lu tegal. am nañ junniy at ak ñeenti téeméer ak lu tegal. te ba léegi boo demee fekk fa ab sànce. nee ba léegi heure boo fa demee rek fekk fa ab sànce. fii tam noonu. ne fii it noonu rek. kon ñaan googu sëñ bi ñaan doon ñooñee ko tàmbali woon. ne kon ñaan googee sëñ bi ñaan doon ñooñee ko tàmbali woon. namm ngeen tabbi ci biir. namm nag ñun ñii ñu tabbi ci biir. moo tax mu boole leen ci. ne moo tax mu bo sëñ bi yàlla boole ñu. ngeen taxawaay taxaw bu am liggéey bu am solo. ne ñu ñu taxawaay ak liggéey bu am solo bii. te te njëkkut te njëkkut tey. ne te njëkkut tey. te te du mujj tey incha allah. nee na te du mujj tey incha allah. jëf ji am na pasteef lool. ne jëf ji am na pasteef lool. képp ku xam liggéey ne képp ko xam liggéey. da nga xam ne xereñ xereñ ngi ci. ne da nga xam ne xereñ a ngi ci. xaalis a xaalis it bu bari. bu bare bari. waaw te yëpp seen ñaq ngeen ko defee. ne te lépp la sunu ñaq rek lañ ko defee. muy muy alal ju lew. ne muy alal ju lew. ngeen liggéey ko ba mu ba mu lew leen. ne ñu liggéey ko ba mu lew nu. ngeen delloo ko ci sëriñ bi. ñu delloo ko ci ba di ko jéem a delloo njukkal rawatina moom rawatina nag moom moom yaakaar naa lam leen di fay ne yaakaar na ne lam nuy fay waxuma yéen mu neen waxul ñun de waaye seen maam yi nga xam ne xamuñu woon ko kuy sëriñ bi ne sunu maam yi nga xam ne xamuñu woon kan mooy sëriñ bi tabbi nañ ci biir tabbi nañ ci biir liggéey kon liggéey bi bu den ko bu den ko xatal ne kon liggéey bi bu ñu ko xatal dinañ fasaale maam yi jiitu woon yëpp ne ñu ci fasaale maam yi jiitu woon yëpp xam na xaj nañ xam na ci xam na xaj nañ ci liggéey yëpp yaatu sëriñ bi àgg na foofu ne yaatu sëriñ bi àgg na foofu di ci fasaale seen sët yi nga xam ne itam ne ñu ci fasaale yët suñu sët yi nga xam ne nii dañu ñëw ëllëg dañuy ñëw ëllëg te xamu xamu leen dañ am pas ba toll bi ngeen amam déet te xamuñu ba xam ñooñu danañ am pas pas bi ñu amam déet fasaale leen ci ñu am pas pas boobu ñoom nee ñu fasaal leen ci baax ngir ñoom ñaam pas defal leen barke ci liggéey yi nee mi ngi ñaan suñu borom defal ñu barke ci liggéey bi sàmm njaboot gi sàmm njaboot gi jubal leen jubal leen bi nangu seen yëngutu yëpp nee te sëñ bi nangu suñu yëngutu yëpp ku nekk am nga soxla nee kenn ku nekk nag am nga soxla da koo bàyyi da nga koo bàyyi jox sëriñ bi sa bopp ñëw jox sëriñ bi sa bopp jox ko sa alal jox ko sa alal ko sa lépp jox ko sa lépp waaye du ngeen ci dara incha allah ne waaye duñ ci rëccu dara de incha allah rabbi kon na xam ne euh, fan yi ngeen fi am ne kon nañu xam ne fan yii ñu fi am dara rawu leen dara rawunu ndax day day fulu sax ne day fulu sax ah, te xam ngeen ko ne te xam nañ ko bu baax walaay ah, te dañ gën a xam a xam bu kanamee insha allah insha allah kon jërëjëf jërëjëf bu soobali jërëjëf sant ñëpp jërëjëfati di gërëm ñëpp jërëjëf di ñaanal suñ cantu bopp ne ñoom ñi nag amal suñ cantu bopp bi ñoo fi ne ndax ñoom ñi bi ñoom lañ ko dénkatu feggal ka làqal ka di fiiw ne ñooy feggal ak a làq ak di kon yéen yéen fu a ñu bëgg teg mën faa teg bëgg a barke bi di sotti rek mais di bëccëg guddeeg bëccëg rek di ñaanal taalibe yi sëriñ Tuubaa di ñaanal taalibe yi ne képp koo xam liggéeyal ne képp ko xam ne na ko defal barke ko fàttale coonam liggéey liggéey ba dana ko fàttaloo coonam liggéey liggéey ba sot ko nag ba na sotti na ko mais sëñ bi nag lu mu ñaan suñu borom def na ko ba noppi kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëfati isaakumulaahu xeer isaakumulaahu xeer